الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم نبينا وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيدك كادوغي أكفن منني ngi toog fii tey ci siège socialu lajnatu taraayil hilal bi bootu ci coordination musulman du Sénégal ni ñuy liggéeyee bu weer amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañuy daje ko fukki correspondant ak ñett yi ne ci région yi ak lu ci dolli ko ci biir département yi ak lu ci dolli ko ci sunuy xame ak ku ñu xam yëg ne ñi ngi yittewoo weer wi mu jox ñu xibaar biñ demee ba ci kanam séenoon ngeen ni ñu toog ci taabal bi yeneen xibaar dabaat ñu ñu delluwaat gëstu xibaar ya gëstu sharia goo xam ne teguñu ko ci polotik wala par parloo wala mbooloo waaye lañu sharia jàngaloon ci gis bu ci kumaandu ci ndax mbooloo ma mat na mbooloo mu ñuy sukkandiku wala déet bi loolu amee jokkoo nañu ustaas di kenn ci ñuy taxawee liggéeyu journalisme ci rajo Keppaar FM mu xamal nañu am na ku ko wax ne rakk ma ko gis mi ngi tudd Ousmane Bitey di jàngalekatu alxuraan rakkam ju ñuy tuddee Mbay Xadi Bitey ju mbokkal ndey ak baay ci Mbiteyeen ci Tayba Mbitey ci kawlax muy ci environnement Kaolack gis na ko ak maneen mbooloo biñ jógee ci loolu ku ñuy wax al imam Hassan Ndiaye dëkk ci Kër Waalo Fatima ci Bambey moom it ñu ne gis mu ne gis mu ne moom imaam bi gisu ko waaye mbooloo mi ko gis moo leen di jiite te doy nañ ko ma ne ko ndax doy nañu la mu limal ma ci ay tur dama sax boo bëggee ma dolli ko loolu lañu ñu sariya sant buñ génnee senegal dem ba Mali sunu mbokk docteur Thierno euh, Mahi Tall di kenn ci famille Cheikh Omar Fouti Tall nee na gis na ko ñu ko gis ci Ségou gis ko ci Massina mbooloo it ñoo ko gis lii mooy li ñu sarexa sant bu ñu ko gisee te doyloo xibaar ya toppatoo ko ba am ca lu wér ñu sukkandiku ci tey di samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru korite daje fanweeri fan ci weeru avril weer wi feeñ na suba di dimanche di benn fan ci weeru mai day dajeeg benn fan ci weeru korite dañ ciy woor dañ ciy julli korite ñaan yàlla mu nangul ñu nangul jullit yépp hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam wa a ala abdi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain